daara ak gaamu produit yu sell te wóor yi ngeen ko xamee saucisson nag ak ginaar viande hachée merguez ak jambon dellu si na di leen gunge te di leen ñaanal kooru jàmm légui nak information bi ma la jox moy Badara amna xey <laughs> Anita mbasa mbasa dil tek mais man xama ban problème la am mhm. problème niveau man lutax wa galle bi wa galle bi munuñu xam man sama niveau man ah man man maa leen wax man français la bëgg a Badara dama lay wax rek dama koy tënk ci lu gàtt bare bu doon xëy palais sax man Badara munu ma gérer man. Hmm. man sama deret moo ma gën a sama drapo cuubu. ay yaa dégg fii xoolal carkindaay ñoo ko fa am laa la wax man du ma cuub sama drapo ci ay français ay yambar man damay dund ak yambar man. wuy ma man dama am benn stylu yambar père da nga ko gis sama jëmm bi. déedéet gis sama man ma am stylu yambar man. Oh. xoolal man fii man carkindaay laa amal affaire ñoom laay dundal ñoo ko fa am fii lu dul carkindaa bugguma yaa ngi dégg fi may waxee foofu kay dégg moom père man xoolal damay insister ci li ma leen waxoon <laughs> waaw man xoolal xalaatuma dund ak góor ba nga xam ne duma ma xëy yóbbul la ndékki ay heure añ jot yóbbu ma yóbbul la añ ah? guddi jot ma woo pénitencier ne leen xoolal coaché leen ma reer bi mu reer man loolu laa bëgg a dund man man sama nouveau foofu la toll ay nouveau français expliqué c'est-à-dire sept cent cinquante yow sa biiru picc boobu nga yor pour yow man moom laa yor man li may dund man sa yéen xamoo leen ko xolal père buma la rombati nak ngamay waxu français yaangi deg fi may waxe yow man ala cerkindaa laay dund ah, ñoom ñoo ko fa am bay même ma jàll <laughs> jallal jàllal imbécile bi xat bi jàllal imbécile bi jàllal dégg nga ni wax naa fii cerkindaay yow kay kon yow c'est un homme yow imbécile nga kii Aliou ya def xat man sama wax yi ma fi wax yep yep yep ba dara li muy doon imbécile gën ki moom it kii moom kii fa fan la dëkk ci eh, ak Arafat ci Grand Yoff fan te foofa ñu baax nga fa. kii ñoom daf nday am na luñ ko ñamal ak ñoom Aliya ndax géem géem lay wax ah, soit que Aliya waaw waaw wala daf nday <laughs> li ma fi wax li ma fi wax wax yow yaay Mamatar Gueye jàmm rek lay jot nu woote nu génne la ci diine ji. nga xama cerki ndaa xama di fen Mamatar Gueye laay woo jàmm ni ko su chez nous homosexuel yow homosexuel nga bi mooy douze bi dinaa ko bën xool ba xam yow sa tuba ji yow c'est un homme wala c'est une rek naan ay cerki ndaa ak ay moodu ndaa di jaay ni waxi si te yooyu ngay jël imbécile bi am naa ni may jàll sa bopp bu rëy imbécile yi muus yeeg lu ne fi sama kër gi sama kër gi ne lu nekk fii dugg kii nga am tàkki ndaa yi muy imbécile yow déglu rek na fexe ba xam nga yow yow imbécile weesuwul <laughs> weesuwul yow boo dugee ci toilette yi di saw mais man ci buntu kër gi fii laa toll dégg car moo la ne kii dafa kii jonkono dafa taxaw di saw <laughs> imbécile bi kenn xamul loo yor car ngay dégg man de conférence waa dëkk ba rek laay xalaat ndax ren di nga ci mën a dem bëgg naa ko de xanaa ma jéem ma tàggu Jóob rek mu bàyyi ma ma mën a dem. ah bu ci mënee teew nga teew ci. waaw loolu dëgg la moom. ñun teew ci moo gën. Hmm, yàlla baax na. moom kii kii douche bi laa jëkk a bënn xool moom ba xam lu mu yor moom ndax mi ngi naan lii lii lii jar ci ndaanee ko moom boo demee sax yow yow yaa war yow daan laa war a wutal jabar. defe <laughs> naa fa fa mi Alaaji Mbeng nga mu wax la lii. Ah, xajay wax ñu vulgaire ay wax. gox moom boo ci bokkee lu ñuy de pour gox bi. Mhm. da nga ci ne. waaye yow yaay lekk lu bon. Hmm? naan ay tànki ndaw ak lu ne. ci nu muy yokkuñu. alaaji Mbeng ba nga ne salaamaaleykum sama kër gi ba tey aw ma jàmm ngeen may bëgg a rey di ma fat dajale sa njaboot ngeen ñëw buubu ci man mu leen di teere loolu weesootul ndeke da yéen a may reeñoo ak a def jëf ju ñaaw ñëw ci kër jàmbur fàtt ko ni teeñu ko kotaan ah yéen ay yéen est-ce wala ay mala wala yéen ay jonxoom ngeen wala ay xaj ah li ngeen ma def ñaaw na da ngeen maa réñoo man ndax yéen ndekete kër gi yéen a ngi waxtaan di ruuma naat di ko gisee ci seen biir te yëguma tinuma surtout yow alaaji mbeng yow yow yaa ma gën a bett ndax Anita li ma wax ak moom léegi moo gën a doon ne mbis siin yëpp ndekete carkindaay xaw ma fan la jëm ah ndekete li ma wax yëpp déggu ci dara ndax réñoo ngeen ba toog di wane ni kër gi lu leen neex fi am du fi am yow moom yow bo ma matul yow mom di nga ni mot ci biti yow ko la topo muy sa bay ak yeen ñep ngeen do doon imbécile genn sama keur fofa lay fat di ngeen genn ah man duma ma ne ci jaxata xam nga lu ñaaw jëw li l'islam wax ci jëw dafa bari surtout na ci wéru koor xam nga lu ci wax neena bu nit teewul ngeen tuddu turam di kawah. wax lolu jëw la. Ah. nga dañ ngeen dajale seen famille di ma wax ta neew fi bu doon yalla nga di ngeen may xaar. Ah. alaaji Meng li nga def dafa ñaaw yàgg sa famille ah. kon loolu la yàlla wax si jëw. maa la ko wax vous êtes des te du yem soo ngeen mbër nag waaw ndax tey jii bu nit teewul ngeen koy jëw loolu mi ngi mel ni ñu tëral médd nag wu dee ba am ñetti fan ngeen topp ko di ko lekk ñaareel ba mooy wax bu borom teewul ngeen fay tudd tëram loolu jëw la. wax bu borom teewul ngeen continuer wax ko di ko te joxoo leen ko loolu tamit bor la ay fen ak lépp ngeen boole. man li dafa ñaaw man de wat na ko ci yomul khiyamul akbar man Ahmed Diop Fall dara jey sàll may ni man man lepp lu may wax nit da ngay tew kenn mësu ni ma ya fi wax ya fi jew ya fi defar mu yaq yeen ak seen jarbat bi nak wo ngeen nar ci góoxum sow doto len ma jew bo ne motu ñepp andado yow ngeen dem yeen ni dafa ñaaw den dina la ko xamal li ngay leñ mo bari ju fall ay ta lo xol ci nit ki nak lol ngay gis man gis nga kii. dama ragal dafa mës a nekk porte parole garage. xam nga ko kat. yow Alaaji nga amoo fulla yow yaa gën a ñàkk fayda ñëpp. Diop. nañu jàmm. yow ban a jot heure jot jot ma xool. une heure da jot na presque. yow kon xam nga yow kon li may wax ñoru la yow Alaaji Mbeng. kii. Anita dina jàll càkkat. waaye Diop ñu déglu journal dañuy déglu. ah xaaral ma jàpp rajo man. Euh, Émilie man laa amee Diop fan sama sentiment yi. yu tële yi ma yëg fi ne sama xol sama. samay xalaat lépp jox naa la ko. kuy wax. Émilie lii wax nii bu doon appel vidéo nga koy kuy wax. sama xol bi kenn moomu ko ku dul yow. ay dinaa la xamal lenn sama jëf ju baax moo tax alaaji Mbengue ma bàyyi ko mu jox ma soxlaam ci anam yoo xamante ni maa la deytaal. Hmm. alaaji Mbengue xanaa xamul moo ma topp. ay alaaji Mbengue moo ma topp lëjël ma lëjël ma. mbokkam gu may wuti ak yëkkati yaari bëy yaari bëy yu am si kii ko laa ci nekk. keroog ba ma yegg si sama kër bi ñuy muur doomam ji di ko indi ni may nañ ma ko te boobu mënatuma ci dara ndax imam ji nee na xutba na alaaji may ne xat la jël ma. Hmm? ko di ci jàmm yàlla waaye bu mu bëggee bu fekk a taxawal ma ñaan yàlla na saa borom ni ko doomam ji yàlla bu fi am doom. oui ah moo am si doom maa takk sama xalaat sama bopp. Hmm. yow moom xam naa ne yaari fan nga fay ñett nga fiy yegg si ngir sama bëggee ma umbal la nu fas yéene njaboot bu barke dimbali ma Émilie ngett nga nga defal ma lii maa la ko bëgg. maa la bëgg biir dimbali ma Émilie. Émilie di xaj. merci beaucoup de la part d'Ahmed Diop Fall bëgg ton amour waaw te incha allah du yàgg dara man xam naa nationalité gambien laay wut man foofa laa di jiir merci beaucoup mon cœur. Sandaga réew réew réew. Alaaji. eh Sandaga raaw raaw raaw. Alaaji.

daara ak gaamu produit yu sell te wóor yi ngeen ko xamee saucisson nag ak ginaar viande hachée merguez ak jambon dellu si na di leen gunge te di leen ñaanal kooru jàmm